sëriñ bi ñu ngi koy sant bu baax ndax bu la yebaloon yow mii doy na sëkk waaye mu teewal fi mu teewal boppam euh, te itam euh, bu ngeen gisee euh, waa commission bi tànn Rawdu Rayaahiin comme ni nga ko waxee li leen lëkkale ak Cheikh Saalihu Mbakke day lu rëy ndax koo xam ne suñ borom da ko jox jox jox tarbiya suñ Tuubaa da ko rafaatle tarbiya muy ab mission mu jël ab cër jox leen ko yéen itam wax dëgg yàlla ku xam ku ku xam di gëstu xam ne daairatu rawdu rayaahin yóbbu na e, xam-xam ci tarixatul muridiya fu kawe kawe kawe maanaam jàppandil na gëstu bi ci anam yu baree baree bari ndax fi mu ne loo bëgg xam ci sëriñ bi rek fekk na ngeen gëstu ko ba teg ko nga xam ne da ngay ñëw rek e, man caa jëfandiku nu mu la neexe moo xam ñiy jàng la wala ñiy gëstu ba ñiy def ay ay ñiy def ay test ay doctorat sax mën nañoo sukkandiku ci yéen ba jàlle la lu baree bari jëllale naa nag li ngeen def ci euh, ndaje yi am lu mel ni màggal Tuubaa mahadaraat yi ak kilifay diine yi ngeen di dajale wax dëgg yàlla loolu liggéey la boo xam ni mënu mëntoon a ñàkk ci yoon wi moo taxoon Serigne Saliou Mbacké radiyallahu taala anhu lépp lu mu dégg wala lu mu ñaan rek suñ borom da cee def barke rawatina nag ña ñenn ca biir di ay borom yi xam-xam di ñoo xam ni ay kilifa lañ kon ñu ngi leen di sant bu baax a baax ci tawaay bi di leen ñaanal suñ borom ba li ngeen yéenee liggéeyal sëriñ bi lépp ngeen matal ko ci baaxu sëriñ Tuubaa jërëjëf sëriñ Abdul Ahad Saane euh, ñu ngi lay euh, taaxeerlu yow itam bëgg nga euh, yëkkati ci kàddu ndax say kàddu yaakaar naa dana am solo lool bismillah bismillah alhamdulillah wasalaatu wasalaamu ala rasulillah mbokk yi asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu ñu ngi nuyu di sunu kilifa yuñ fi dajal dalee ko ci cheikh ahmadul badawi ak euh, cheikh abdul qadir ak cheikh euh, murtada ak mbooleem sunuy sang yi ñu fi dajeel ak euh, sunuy mbokki daara ak sunuy magi daara yépp rawate na mu xaadir bi nga xam ni sunu magu daara la yàlla dogal ñu gëj a gise gëj a gise koo xam ni xaw naa jege fanweeri at te daan daan jaxasoo lool ci ay jamono daan gise lool daan waxtaan lu bari lool eh, loola yépp ay mbégte la yu daje ci ñun tey Eh, alaa kulli xaal waxtaan wi eh, ku ko dégg doo ca doyal ndax eh, tënk na ba niqaat asaasiya yi point fondamental yi ci ci waxtaan wi ci thème bi waaye mu am lu ci am solo lool loo xam ni junj na ko mooy kilifay diine yi li tax ñu mën a jeexital lool ci ci mën a jeexital ci saxal jàmm fu ñu mën a ne mooy ndax ñoom seenu taasir day doon taasir ruux yi ca xol yi la ñuy liggéeyal te lislaam it comme ni ñu ko xamee yonent bi boo gisee mu amoon taasir ba mu amoon def na fukki at yoo xam ni ci xol yi rek la doon liggéey amul julli amul woor amul dara ci xol yi rek la doon liggéey ba xol yi nangu ñëpp nangul ko léegi ndigal yi doog a ñëw benn par benn te ñëwandoowul kon jeexital ci xol amul sikki sàkka ni moo gën a mën a jeexital ci lu mu mën a doon ci ndigal lu mu mën a doon bu ñu doon joxe misaal rek fii ci sunu réew Sénégal gox yi nga xam ni azaama diine dañ fa am taasir lool ñoo ëpp jàmm ëpp istiqraar gox ya nga xam ni amuñu fa taasir lool <laughs> lool rek doy na sëkk waaw ñun waa Casamance lañ euh, ñun foofa ci Casamance dëgg la jullit ñi ñëw fa ëpp amul sikki sàkka waaye nag euh, euh, daanaka taasir gi azaimu diine yi war a am niiw na lool foofa ci sunu gox boobu ndax daanaka dëkk bu nekk ak sëriñam la foofa loola moo fa am dëkk bu nekk ak ab sëriñam amut lu leen boole ci wàllu woowa donte ay jullit lañ moo tax ibtiraabaat yi ci réew mi foofa la gën a bare ndax ñàkk gi nga xam ni azaama diin ya ñàkk nañ ko faa am taasiir ga nga xam ni am nañ ko ci gox yi nga xam ni moom lañ moom lañ ko am moom moom lañ ko am fii ci réew mi dinaay wax wax yenn saay maa ngi koy wax étudiants yi fële ci ginnaaw élection présidentielle yi weesu ma ne sunu borom dafa defal Sénégal tawfiix tawfiix gi mooy ña nga xam ni ñooy majorité ëpp ci réew mi ñooy ñi nga xam ni ñoom la sëriñ si gën a jeexital ci ñoom ña ña sëriñ si am taasir ci ñoom ñoom ñooy majorité ci réew mi bu ñuy xool ci xeetu wolof ci misaal mën nañu ne ñoo ëpp ci réew mi yaa xam wolof ci deret walla wolof ci kàddu bu ñuy xool xeetu tukulóor ci misaal eh, ñoom ñëpp ay xeet lañ yoo xam ne mutadayyinoon mutadayyinoon eh, ba ba ba doon naa wax sax ngeen baal ma ne bu bu bu ab soose ëppoon bu xeetu soose ëppoon ci réew mi réew mi du am jàmm ndax rëy gi ma xam ci ci soose ak yeneen xeet yoo xam ni bokkuma ci mënuma caa wax waaye xam nañu am na ci xeet yoo xam ni taasub ak rëy ga nekk ci ñoom bu ñu fi ëppoon jàmm du fi am alhamdulilah ña zaama diiniya yi gën a am taasir ci ñoom ñoo fi ëpp moo tax Sénégal jàmm nekk fi booba ba tey kon ñu ngi sant yàlla sant it sunu kilifa yi nga xam ne sunuy kilifa yi diine lañu yi nga xam ni daa iman ñu ngi ñu ngi téye seen masuliya ak seen loxo ndax nag euh, azaimu diine dafa war a di yëg masuliyaam damay wax ni kilifa diine yoonam daa ne ci lu ne lépp rek yoonam da caa lu baax yoonam a nga ca lu bon yoonam a nga ca ndax lu bon alal mu dindi ko mu wax ci àddu ci dindi ko Euh, loola kon yoonam a nga ca lu baax it yoonam ma nga ca kon koo xam ne sa yoon dafa nekk ci lépp nag boo noppee surtout furuuf yi réew mi di romb tey bu ñu yàlla baaxewul woon ay kilifa yu mel ni kilifa yu furuuf yi daje réew mi ba tey kon mi ngi tàkk kon ñu ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp di ñaan yàlla mu dolli réew mi tawfiq dolli ko réew jooju asalaamaaleykum wa rahmatulah. tabaarakallah jasaakumullahu xayran jërëjëf Serigne Abdoul Ahad jërëjëf kàddu yi <clears throat> am na solo lool waaw kon mel mel ni waxtu bi dañoo ñu yëkkati ay kàddu cant yoo xam ni mu ngi bàyyikoo ci sëriñ bi waaye war a jaar ci sëriñ bu Kébé bisimilah bu ko defee buñ noppee sëriñ bi dana def ñaan ñu dog xew lu doog a mën a yewee ko waaw salaamaaleykum wa sëriñ bi moo doon jottali ay kàddu cant euh, magi euh, dëkk bi dëkk bi fi mu euh, janatul mahwa ma ngi janatul mahwa euh, ak sëriñ Maas Sall ci taxawaayam bu am solo bi mu taxawee ci bis bi euh, indi fi taraanga yu yaatu ba liy jagal bis bi loxoom feeñ na ci bu baax a baax a baax a baax mu waxoon nañ ko jottali ay kàddu cant ak ngërëm ci taxawaayam bu am solo ci taxawaayam bu am solo boobu di feddliwaat kóllëre gi bu baax a baax di àndak moom liggéey bi kon ñi ngi yemale kàddu yi foofu sëriñ ñaan ñu jublu ci ci eh, xew li incha allah. ok kon ñëpp bàyyi xel sëriñ bi mu def ñaan mm, ba beneen jataay incha allahu tabaaraka incha allah yaa xayra dayfin ataa bil bishri wal madadi